murit dëgg bul gaaw a wut kër muñal te wut it te ngir kër dafay kar murit murit dëgg bul gaaw a wut kër muñal te wut it te ngir kër dafay kar murit ku jóg soobu manding te ànd ak ndaw ak jigéen ak lafañ moona muy def murit ku am kër amub sang am naw la jël kër ak ab sëriñ ñoo jafee yor murit jagal sab sëriñ ak sa waa kër bu wér ñu jag bokk bég loolu yombul murit sa kër gi bu santee sa kër sang mer këram it bu santee sa kër mer murit la gën na nga far muñ sa bopp ak sa kër te jox lépp sab sang lii ding murit bu sab sang santee sa kër mujj jag te jóg faw ngay ngën ji bépp murit ku sangam ba santul lu jag-jag kërit këram doo ko gis mujj ak jang murit te koo gis mu sàggan caab sangamit lu jag-jag dafay xëy ni janjang murit ku néegam ya jag-jóg te sangam bégul dafay mujj daanoo ki néegam murit ku ànd ak këram daanu ngir wut ngërëm dafay mujj ànd ak këram jóg murit balaa kenn jóg daan daanul murit balaa kenn am ñàkk-ñàkkal murit balaa kenn jóg daanu daanul murit balaa kenn am ñàkk-ñàkkal murit na ngay muuse bay xëy di am dàgg yow te taggoo wulaaku jiwoogun murit na ngay muuse bay tàbbi firdawsiit te jëkkoo musug deelu bon bon murit na ngay muuse bay am lu kenn mas la am te kenn wékku cam xel bayal gëm murit doxal fii ñu doxloo ko tuut ak kuréy te doxloo fa bépp sëriñ ak murit te yam fii ñu yam loo ñu teew ak ñu wey te yam loo fa ñuy ñëw defal nit murit dafay am laab lar sañul donte sax da ko sañ ko nit far ko baa gën murit awal fii ñu daa aw te yam fii ñu yam te bul sar di wey fàggulu bi yar murit laab sang sañ bokkul ak lab laram li sañ-sang sañ lépp man koo murit fa mbooloo maaw rekk ngay sañ di aw sañoo bat di as mbuntu soo aw murit njagam nag dangay wéy ba sab sang woo la baddil la sas mbuntu dox faa murit ku sangam ba xëy baddilus mbuntu nag bu koy jéem a def maasa koy roy murit dagaanal ñu far lay musal fawwu yow ci roy lëf lu neeful nga roy koo murit sunub sang yàlla na xolam bég ci nun te yal na xolam bég ci bépp murit sunub dund yal nay ngëneel ak ngërëm te far yàgg amiina ak kuy murit sunub dund yal nay ngëneel ak ngërëm te far yàgg amiina ak kuy murit sëriñ bee matub sang moo gën ku ne te moo day wolof ak tubaab ak ku ne mbiram doy na naar ak tubaab ak wolof te doy sëkk góor ak jigéen ak gone ku koy sikk nekkul ci suuf ak ca kaw mbiram fes na ni jant tey moo fi ne te leeral na suuf ak kaw ak bépp gox jëfam jëm na kaw aw turam dem fu ne ba max nay nga nee la ki jur képp nit ba koo gis mu feesal te am nag lu ne bu seeroo ku sàggan te bon mel ni man mu fab teg ca kaw far ko mooy sag bu ne bu dee gis ku ñuy xeeb a kay dox di xas mu dëbb ak bonam xëpp ko yiwu ne bu dee gis ku ñuy xeeb a kay dox di xas mu nëbb ak bonam xëpp ko yiwu ne ku ñuy dox di suxloo ko soowug bonam balaa yàgg koo kay rawee kay gëne bu jàppee ku bokkam ya fab sànni fee bu delloo fa bokkam ya moo fay tane ngenee la mi ñoo daj kajoor ak bawal te daj penku daj soowu daj wet gu ne xamu genn wet guy ngëneelam newul ndaxam gaa yi ji waaye gën waaju ne amul genn wet guy ngëneelam newul ndaxam gaa yi ji waaye gën waaju ne te yal naw fanam ak sunu fan di wéy nu far mujj am fan wusut fan wu ne te yal na xolam sedd faw wit ci nun te far sedd seddit ci mboolem ku ne sa naw lay lay liggéeyal ngay nelaw du lu jub jógal te def la nga man yow doon te julli la sax lay tax sa mbir yi la jag ak seeni mbir du nelaw loo dégg nit mas ko fee am duy nelaw ko ko jox sa xol bi yee ko te yee say gët sa lépp na jóg di sàkku ak yegg mbaa doo yegg maa la ko wax sàggan gënul nit ku sàggan lum yorit dana rot te lum yorul du ko yor wax ji ma wax du la rax jox naa la dëgg fabal bul jay sa bopp aka nax ku bëgg dëgg bu seeroo dëgg for ko te sax dalal di jàjju tebul ni yow ba jàjju di wéy ngay door a jàjju ku gis wax ji na jàjju te fëx ab lar dafay ragalub sangam te fonki waxam ku gàcce jub na nga daw moo gën di néeg ba torox sëriñ bi dëgg fegal ni gàcce yaa mën a fekk gàcce ki tiisa ki lor nu noo ngi nii ni be sax samay mbir ak mbiri gaa yi may liggéeyale ngi jox naa la seeni mbir ak saa mbir fegal nu lu nëx gaa yaa ngi lay kër këri kay sàkku yàlla fi man di sajjiloo sa ka daw tey waa fa kay loxo lax ngir fas ni junneeki téeméer ak daraa ngi fi man te xam ni man Baabakar xam naa ni aw ma su sax lekk ak nelaw rekk laa man lii ku nekk ko man moo tax ma fab sama mbir ak seeni mbir di la jox ku fekk sa julli bis ak cant war na ko ngir sa benn kàbbara gën julli juróomu junni yow yaa gënal yàlla mboolem sang bu ma sa def sa jaamu it moo gënal te yàlla jaamu gu ne ku fekkee sa julli bis ak cant war na ko ngir sa benn kàbbara gën julli juróomu junni yow yaa gënal yàlla mboolem sang bu ma sa def sa jaamu it moo gënal te yàlla jaamu gu ne ëppal njariñ képp koo gis ëpp jàmm ku yiw koo mën di dégg te ëpp bi yar ku nit masa xam ëppal njariñ képp koo gis ëpp jàmm ku yiw koo mën di dégg te ëpp bi yar ku nit masa xam sab xar kanam dee ko leeral yàlla bëgg na kat koy leeralub xar kanam bu lëndëmal sa kanam sa wax ne wér sedd noo it suufe neexe ni lem ngay waa fa kay mokk koo seeroo ka sàkku mbégam moyul waxef den wax seddal ko rekk a ca gën tàngal ko rekk a ca bon bul mel ni gar gu bangam bul mel ni gaynde melal nim xar mu jum mu lewet mu ñépp sopp banaa barbar ngir lewetam yal naa amew melo man woo xam ni wii dana tax ku nekk àttana toj boppam ba teg ma bëtam yal naa amew melo it woo xam ni wii dana tax ku teg ci man bët mu ñub soppee ma kub xaritam yal naa di koo xam ni kii it jépp waaju ko bañ bañ yàlla faw a ki gaayam dëkk kub tawatam yeneen malaaka waliyub saaba yal nañu ñëw ku nekk jox ma soloom ak mbootam ak mébétam koo xam ni kii ci limu gaay yi la yal na ñëw ak taw fee xaman di malam foonal nu ngeen jixetam koo xam ñi sopp nu leen it yal na ñuy dalalum xelam fu nekk ba xel may dal fu nekku fitam koo xam ni sopp na leen it yal na ñuy dalalum xelam fu nekk ba xel may dal fu nekku fitam koo xam ni takk na ndomb ak tànk yal na ma may ñaanal ma dig ma nga neel ak fan wusut wu ñu xam bayil bayil yow jaloorey gaa yi ngay yére kay doyloo te wut sa jaloorey bopp moo gën a wóor jaloore joo deful ak ñam woo ma sul la fa yam texet ga gindi la ngay doyloo kamel ni ku suur xamal ne rey sa nga naaras bopp soo ma sa gën nag yoo musul yu ñu naa cey ñoo ka duuf ak a suur koo xam ne wàcc na asteenam di bég ca dexuk ndargee ka waxtaane bis teenam ayib matadóor ku nekk fii lu ko géejug ndar di faj ba waral mu wàcc teenam ba bañ koo raw ndaway defu toor la ndar di def rekk ngay def ndox ma nekk ca ndar jeexul sa ndox mi le it jeexul xañeefu la nguur looñee ku man jam te doo ñàkkug ndawal aku ñam looñee ku jàng te doo moy ngir ma yaa gañe buur looñee ña nekk fa géejum ndar te ñàkku la ndox looñee ña yor peke it yow mii te bëggu la nguur doyloo rafet sant neexit yàlla moo la warit doylul te sant ñu jañ sab dig te yokku la muur saytaane daana ji sag nit wenn nag mu fasoo koo nangu indi nagam joo wenn nag waca biir ba noppi yu xuy nagam fëx nag watam ni sarax ca nag yërëj ci boroomam yal na mooy lu mu diir yal naw ayam yam ci boppam képp ak ci ñoñam te jàmm dal nu ci bopp ak barke dal gu nu wóor fasoona maa jub te sax ci ak jub te sawlu ci jub guddi gi séeréel fasoona maa tuub te sax ci ak tuub te sax lu ci tuub bëccëg bi séeréel fasoona maa set te sax ci ak set te sax lu ci set waxtu wi séeréel fasoona maa yéeg te sax ci ak yéeg te sax lu ci yéeg yow at mi séeréel fasoona maa baax te sax lu ci baax te sax lu ci baax yow saa si séeréel fasoona maa baax te sax ci ak baax te sax lu ci baax yow saa si séeréel fasoona maa leer te sax ci ak leer sax lu ca yow weer wi dëgg séeréel fasoona maa nooy te sax ci ak nooy te sax lu ci nooy yow noo gi séeréel fasoona maa way te sax ci ak way te sax lu ci way jant bi séeréel fasoona maa muñ te sax ci ak muñ te sax lu ci muñ yow suusi séeréel fasoona maa yees te sax ci ak yees te sax lu ci yees sëriñ bi séeréel yeneen bi séeréel jibriila séeréel yow yàlla séeréel ajjana séeréel sadiixa séeréel omara séeréel osmaana séeréel ali séeréel ku mën a ñàkk bu robina yow ñàkkatoo ab robina yàllaa la jox sab robina boo ñàkkatee lëf yaayabu foo mare lëf ubbil te biis foo xiife lëf ubbil te biis boo bayiwul ubbeeka biis sa bunti mbég dootu ubbu foo bëgg lëf awal ndigal foo bañ lëf awal ndigal ñu jox la lee dal lay fegal li le nga am mu ci sabu rëbina nag moo di ndigal kuy ñoddi lëf naaw ndigal kuy jañ lëfit naaw ndigal bul réere yow rëbina ba ku bëgg am ñuy aw ndigal na jóg taawu fawu ndigal ku bëgg a doy la it alal na fab alal jox sang ba sang mu nekkum ceeba la mu nit bu nekku jiwu la ku bëgg ngarte jiwu la saw jiwu mooy na bunt ba sang bu nekkum ceeba la murit bu nekku jiwu la ku bëgg ngarte jiwu la sew jiwu mooy nga bunt ba teget ku jàpp aw jiwoom ji ko mu sax bay dogi woom mu wàcc mbay wàcc na moom peppam asal ca gajj ba ku xes ba tàggoo ko jiwoom na bay ba dëgg ay njuróom ku bay ba dëgg ay njuróom na wallu waa diggante ba ku wallu yàlla wallu la ku joxe it mu dolli la ku joxewul mu jéppi la am teye daala bon si bu ku am teye bon lu mu def te donte yàlla dafa def noonee mu def doomi yëf bay denca kay dox di ubu ku ñàkk muñ rekk a ko war te ko am it joxe ko war ku ne na sax ci la ko war ndax ñépp am lu ñuy dabu ku yeggagul muñ a ko war ku yegg nag sant a ko war tey gatandoo ko faji lor ku ñàkk loo def yaayabu yow mii di sàkku lu ne ka fàggu tuubal te sàkku li ñu la tànnal sàkku li teggiin fàggu li teggiin ku ami teggiin am yàlla sottal ku ñàkki teggiin kookewul yoon te kowul yoon du yegg déggal boroomi teggiin mu aw ci aw yoon ku aw ci aw yoon yegg bu jëddul teggiin a diw yoon tey ngeen jaaw yoon lu dul li teggiin sobe la teggil jëndali teggiin te jaayi teggiin koo jaayi teggiin mu jënde ko xol ko amee teggiin soxlaati teggiin ku ñàkki teggiin soxla ko jaayal teggiinu ñam la te ngeen ji ñam la ndax ñam wu yàlla sopp la yombul ñépp a ko bëgg ñépp a ko tagg kenn du ca regg ku mos ni dollil mag du ko doyle ndaw du ko doyle kenn du ko doyle koo jox mu ree jël moo dàq suukar fopp te gën kër te gëni waa kër def ko sa wéttal wutali teggiin fexeeli teggiin xamal ni teggiin lañu la tànnal sëriñ bi yàlla na juboo juboo ko gën géppug juboo ko am murit mosa juboo kub sëriñam ci àddina sëriñ bi yàlla na juboo juboo ko gën géppug juboo gu am murit mosa juboo kub sëriñam ci àddina yiw murit mosoon am cib sëriñam yal na nu am wawal yiw ci yow te am ci yow lu ñépp ni tëna yal na nu dund ak yow di wey ngay am ci nun ndama ki way nuy am ci yow ndama ki way ba bokk tàbbi àjjana doxal bu wér sunu digg ak lu dul sa dëgg-dëgg mbég te fab sa dëgg-dëgg mbég raafe nu faw sotti na sësal ci nun nu sës ci yow rekk ni ràpp dar ci yow faw te nekk nag ca kaw mboolem ku ne fi kawe na sës nga bu wér ci sa boroom nan sës ci yow ki sës ci moom te di la jox cant gu tiim cant ku ne fi sant na yow yaa yeyoo cant gu ne te yaa yeyoo ngërëm lu ne bu dul ko nag yow ku ñu ni anamu ne fi sànku na yow yaa yeyoo cant gu ne te yaa yeyoo ngërëm lu ne bu dul ko nag yow ku ñu ni anamu ne fi sànku na yàlla nga jëpp jërëjëf yow daala mat ni jërëjëf mbooloo mi yow rekk ci jëf sa jëf rafet na yegg na jaaraama yow rekk liggéey te koo fu gis ci sab liggéey lay wey ndeñee lu ko liggéey wàcc nga ñépp nangu na murit yi yow la ñuy bégee sëriñ si yow la ñuy bégee barab yi yow la ñuy bégee sori nga saw tuur sori na ku dee fi jox yaa ko waral ku ñuy dawal yaa ko waral yaanu defar yaanu musal mbàkke sa yiw wi bari na ñépp a ngi nii tey di nu ñee te yaa waral ñu di nu ñee boo lëgee nañu ni ñee ni ñu ni ñee ci àddina ñépp a ngi nii tey di nu ñee te yaa waral ñu di nu ñee boo lëgee nañu ni ñee ni ñu ni ñee ci àddina li ngay defal yàlla du doy ngir li mu lay defal du doy jàmm ji muy joxe du doy jaamu gi muy digle du doy bul doy la ci jaamooti yow te doy le woo ci jàmm yow diiru li ngay am aajo yow cib añ amal itte ci mbay yàllaa ngi lay defal lu baax te mi ngi lay def loolu baax boo ko bàyyee defal lu baax mu bàyyi kat noonu la day bul jàpp añ ni xër mbay bul sànni añ ni nikk mbay saxal ci añ dëkk te dëkk ci bay xaral ci lii tànk tubéy bul jàpp añ ni xër mbay bul sànni añ ni nikk mbay saxal ci añ dëkk ci mbay xaral ci lii tànk tubéy añ du lu ñuy mën a bay mbay du lu ñuy mën a bay yi yaari yëf loo ci bay bay nga saw yiw nga bu ay ku wàcc sa càll ba di yootu añ moo mata ba bul balu déeful mën a ba boo ko bàyyee doo mën a wéy ku bàyyi mbay ñaaw doxiin ku bàyyi añ ñaaw doxiin yal na nu gën ñépp doxiin kamay ñaam yal na nu may kamay ñaam géppug noteel yal na nu may géppug noteel may nu ndam ak wàllu gu teel gu gaawee ni melax tërëy sunu njulit yal na rafet sunu ngorit yal na rafet te sunu àjjana rafet lool ak sunu mucc ba tey jant ba lay fenk kaso diir li muy fenk kaso nun yal na nuy fenk kaso ci jàmm kuk jaamu te way yal na nu sax dàkk ki koom yuy tax nu gën fa kanu moom faaw te gën fi ñi mu moom wér gudd fan jub sori nay yal na nu dib teenit bu doy ñépp bu dul jeex ak a dëy boo xam ni bii lu man di ay muy fees a kay neex ak a doy yal na nu dib teenit bu doy ñépp bu dul jeex ak a dëy boo xam ni bii lu man di am muy fees a kay neex ak a doy njëgam aw ma ndam boppam sama sang am ma ndam njëgam manki naa moo xam sama sang mankiwul njëgam tuuti naa moo xam sama sang tuutiwul njëgam suufe naa moo xam sama sang suufewul njëgam galli naa moo xam sama sang galliwul bu may sàgg nit moo xam sama sang sàgganul njëgam jekki naa moo xam sama sang jekkiwul njëgam fàtte naa moo xam sama sang fàttewul li lee tax li may bon bon ma xam ni lu man di xew damay mujj gën mbooloo mi jël ndam ñu xëy ma fal ku war cig sa xaaram tey nelaw it du tee mu raw waral lépp loo bañ ñàkk war dong nga koy waral waral ci saxaaru cant dam ña la jiitu woon te bul dof ba wàccit benn teerub tawat wéyal wéyal yow te bul teeral ci teeru bu dul ndigal ku teeral ci teeru mooy ndigal ñàkk ndam dawal ku bëgg tiraanga ku palak mbir mujjub yéwén na ngay teer a kay teeral ci teerum muñ ak ndigal muñ ak ndigalay teerum ñëgëm yàlla nekk fa yow saxaarum nga neel ak barke loo mën a dañ muñal saxaarum nga neel ak barke buy ñëw nga dal di bég te am darajaaku tur wu siiw ak ndam ak ndawal sa jëf na rafet lool ak sa njortu nga fas lu rëy di seenu ndam ak loo bëgg sab sang mankiwul kon laa ku baaxul laa ku dof laa ku dëng laa ku jum nga ku lëf yaqul nga tànnee fi yàlla nga ku sew laa ku rus laa waa ju des laa ju manki laa ku rëy nga ku am ndam waa ju mat nga ju tedd nga marax laa fajar laa guddi laa man ku suufe laa nga def jant tey bëccëg di ab sang sotti nga gatax laa di ngooñ ak cox di mbuum ak xitaat di sëb nga def ràcc tey mbaanig di yàpp ku sell nga ku nax laa ku teeyul laa ku sob laa ku laawu laa ku dul nax nga kuy teeyal di teey ak a segg nga ku bëgg ndox ak ñam laa ku dul regg mukk laa ku tuuti nga kuy mos tuuti yow nit ku faddu nga ku xer laa ci duniyaa ji ku dul yow mukk laa ku dëddu ci duniyaa ji nga noo wuute kenn nga ku dul topp laa koy def lu bon wépp waxtu laa ku dul mooy nga yow koy def lu jub wépp waxtu nga ku bëgge ku bañ ab coono laa ku ñu jiitu laa nga doy lu tanangoo sonn waare nga jiitu nga ku dul waaru laa kuy waare laa ku ñu yedd laa ku waaru nga yow tey waare yow ku ñu tagg nga samay daba ngi fees ak përëm man ku sëgg laa sa dab yaa ngi nii fees ak wurus yow ku siggi nga damaa na ca suufas gaaya suufe ñu wër ma nag nga far kawe mboolem gaaya jëm kaw ku tandu nga ku tandu nga xejjub yàlla dëgg nga noo ngi nii ci say yoxo may nu pal ku diggu ku tekki nga amul kenn kuy teg lëf ci wax joo ko wax lu dul def ak sant ngir yow mii ku rëy nga ku dégtu nga waxal nu wutal nu si lëf defal nu te dig nu lëf te teeral sa xaaru mbég fi nun aji terle nga waxal nu wutal nu si lëf defal nu te dig nu lëf te teeral sa xaaru mbég fi nun aji terle nga te yàbbil nu yéerey mbég yi dem daya faf ñëw ak sa jàmm ji yow lottoo ci lëf waaye yàlla nga sëriñ ban ba yaadim ceebu dëgg moo am njëriñ tawalu nga nu jàmm xaalis ak yërmandeeku nit te dolli nga mboolem nit ñi tooyal nga seeni xol na ngay xiina kay dënnoo ka xitti te bul sewet tafal nga nu naataangee ki mbooloo yu jub yu xir yu bëggul lu dul nun yaa gënu jur gënum nawet danuy sant ngir nun yaa nu fab teg ca kaw li kaw te jébbal nu nguur ak doomi buurit lu nuy tawat wasal nga ci nun ñiy barke yàlla na nu yokku ren te fekke déwén jéeg ak déwén fekke mépp at lu xal seeta ñëw ci cant ak njariñ ak ngërëm ci àddina ji yàlla nan ko teewe te daaru fit tey wunu faatoon ak wu faatul na ñëw te sax fi nun fa wunun ñi ñépp may nu li nuy mébét musal nu ci ñàkk ak kéefar ak yéefar ak loram te may nu juboo ak mujj gu dem dayo cig rafet danga taaru say wax taaru say jëf rafet ba dee nga far gën ku nekkub xol lu bon desewoo ca xet danga taaru say wax taaru say jëf rafet ba dee nga far gën ku nekkub xol lu bon desewoo ca xet te sag fàdd ak sag feeña yam lépp loo ci def yeyoo nga ca gépp cant sab xol rafet na set bégal nga sa ñuñ yaatal nga ñépp ci gépp wet defar nga sa mbooloo mépp yaamata jóg di wut ña daa sant seeni nawle tey ñu ngi war ca kaw ñëgam topp leen ak seeni pas-pas yanuy boyat sagan boo fu gis tey mel na ni bi yaaramay ndeyam di bàyyam mu far dib sang yaa mën a soppi nit kaxas ñabb ceebi bi yàlla yàlla na nu far juboo te yàlla na sunu diggante leerit te neex a neex këtëj bunt yor doomam ba képp ku bëgg wéy te jaaroo ci bànneexam ba sab xol du neex a neex ku jóg jëm ci buurum ñépp day jiitalum xelam te wut làpptoo buy wax ci moom it lu rëy lu neex wutal làpptoo yow mii bu lay tagg kay gërëm fa buur ak xejjam ndaxte yàlla nga am lu neex amul làpptoo day teeñ làpp la lii waral ku am làpptoo war koy defal lu ko neex a neex bàyyi dox di am aajo kay ak kamti lëf ba dem te yóbbaale woo sab làpptoo lii du jur lu neex sunub làpptoo nun yàlla nay bég a bég ci nun ba far ni bëreet sàkkul nu jàmm ak lu rëy te neex te yàlla na fanaanee sàkku cant gu jëm ci nun ba noppi te yendoo noo bégal cay li leek a neex te yàlla na fanaanee sàkku cant gu jëm ci nun ba noppi te yendoo noo bégal cey li leeka neex te yàlla na ni ñokket jëm ci nun faw akuk tabam akuk lewet ak yërmaande amiine kon mu neex te yàlla na nu fàggal gudd fan ak wérug yaram akuk farlu ak tawféex ak i ñam yu neex a neex te yàlla na nu fàggul gudd fan ak wérug yaram akuk farlu ak tawféex ak i ñam yu neex a neex gërëm naa ko yal na am ci moom it ngërëm lu rëy lu ñeemu lu dul deñ mukk tey dolli kooka neex danaa sàkku nag diirub li may noyyi jaajëfam te maa ngi di daw mboolem lu dul la ko neex a neex te yal naa rawit mboolem lu dul la ko neex a neex te jot lépp lëf loo xam ne lii moo ko neex a neex danaa sàkku nag diirub li may noyyi jaajëfam te maa ngi di daw mboolem lu dul la ko neex a neex te yal naa rawit mboolem lu dul la ko neex a neex te jot lépp lëf loo xam ne lii moo ko neex a neex sëriñ bi ku nekk ak ñun di muñ nag ba xol ba jee mu xëy yewi boppam dem musal ko ci jépp lor te mboolem ku ànd ak ñun di sant ak muñ loram te sax ci sunuy mbég may ko dund ak njariñ lu wér ku jóg ñëw fi nun ngir yàlla ak yow na yóbbu mbég bu kenn ñëw fi nun ngir yàlla ak yow di yóbbu mer bégal nu ci yow nun ñépp mbàkke te bég ci nun nu bég faw ngay bég faw wa kay sant nuy sawar te dolli nu teggi na ngërëm dolli nuy dërëm yilew domm ak jëf joo gërëm junni gàññi far safal nu ci yow mi sàpp lobb nu ndimmal ak njariñ may nu jàmm ak wërsëg ak njëg gu rëy gu jar réyal nu ci biir ak biti faw te far wasal ci nun barke def nun dell guy tàkk sox bu ñor sewal ma fi saa bët bii réyal ma fi bépp bët musal ma ci lot ak lu akuk luuma ko njabar doxal sunu digg ak lépp luy lore ak lu bon te dox sunu digg ak képp kuy jomm leeka wor doxal sunu digg ak mbokk muy fexe lor ci nun te dox sunu digg ak bépp jaambur bu ñàkk ngor doxal sunu digg ak dëkkandoo ju amul njariñ te dox sunu digg ak jaani àll ki jaani kër musal nu ci mboolem nit ñi ak seeni lor bu wér te yor nu bi wér yow kiy jariñ nit te doo ko lor musal nu fa lang nu dog bu duufa ki cantati ci bii jant faw ak bépp jant bu fenkati danoo bëgg far ab dog te mucc ci mépp ndog rafet jëf rëy bi yóbbal amul jiitu xëy note natal nu te may nu jiitu def nu ku ñépp ñee ku boole payu duniyaa ki laaxira far koti saxal nu ci naataange ki cant ki mbég yu rëy yu dul dog ba firdaw seeti fay reeki ndam jote fabal li le nuy wut may nu ak laña xam di wut te def nu ko am mboolem lu kenn xala jóg wuti lu nekk ci duniyaa ji ki laaxira ciy njariñ fodan ko ni cas jébbal nu faw ak leneenati danga am bu wér yonnen ba ak yàlla naa la am manit am gu wér goo xam ni dootoo ma rëccati sunuy xol na fees ak yàlla ak xam-xamum njariñ sunuy kër ni dell ak wërsëg ak nit ñu dul jote sama xol na lay gis ak samay gët ci sépp saa fu may xefe mbaa may xippi yal naa la karfati sama xol na lay gis ak samay gët ci sépp saa fu may xefe mbaa may xippi yal naa la karfati dexum mbi nga yow yaa dàq suukar te dàq lem labal ma ci yow may sant daalaka korfati fegal nu mar ak mer may nu am ndox mu sedd muy seral xol di feg mar faw wa ak mer ñu ko tarfati fegal nu mar ak mer may nu am ndox mu sedd muy seral xol di feg mar faw ak mer ñu tarfati dugal ma ci sab xol mbàkke yaatal ma def ma kër te dëkk ci man mii faw yow ki ma yëkkati sarax nu cofeel ak wóolu ak gëm gu wér ci yow te di kenn mbég bu jant soo mbaa mu fenkati ma fab sama ndab lii yóbbu kooti ca waame wa bu may dem di feesal dell ban baa di waame wa ku cay dem di feesal dell delloo ki ndam sa kër di duy ñépp a kay doy ñépp ban baa di waame wa dafay tooyalub xol xepp naatal ko sol ca mbég seral ko dalal am xel du mooy xàllu cant wa gawar la bu man aw fas du daanu du yàqu fas da koy wëgg a kay ñàddal ba ma ko ca xàll wa dafay war a kay suural du yooyal du ñàkk a war kilee di biyafalkat di gawar jël na tagg wa amul ci gawar yi kem fasam amulub kemit ci fas yi fi gën moo sut sëriñ sépp ëll wa gonee ma gënu mag aw loram moo gënub kurél sëriñ sañu daanaw sépp jël lu ñu waq wa faxas na ci nun mboolem lu bon ba mu set welas musal ci nunu jub fal nemmal nu yamb wa faxas na ci nun mboolem lu bon ba mu set welas mu sol ci nun ug juffal nu nemmal nu yamb wa goral na nu yambu cant lem gaa ngi noo ngi fas di sant ka wax cey lii mu këf asi yamb wa tefar na li nekkoon it ci nun ciw ay ak naqar falang ay wa deefoon seenu wépp ak waxante wa danoo boole nun ñii ñépp def ci tatay dojam ku dikk fi nun ngir yàlla war sàllu mucc wa bégal nanu jox nuy mbég dugal nu ci néegi mbég jëmal nun ca firdew seeki mbégi raw na waame wa bégal nanu jox nuy mbég dugal nu ci néegi mbég jëmal nun ca firdew seeki mbégi raw na waame wa subhaana rabbika rabbil xissati amma yasifun wa salaamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin saxaaru ngërëm gaa ngi nii tey fi nun ku bëggul lu dul dem na jóg ñaani paas te mboolem ku duggul bu deqee ba wéy ngëru sonn am gàcce nan ñaani paas di sàggan ba muy dem nga jóg nag di dox te doo yegg lii ay lanan ñaani paas te jóg léegi daw dugg moo gën di nekk ba muy deq ngay yuuxu nan ñaani paas di yuuxoo ka wakkaaju muy daw di wéy du taaru mu kàllaf jógal ñaani paas xol ak jur akuk aw ndigal faw nag yëgal yow ni yi yatt ngay ñaane paas te doo tàbbi mukkit saxaaru ngërëm te jàppoo bu wér yatt yi ñaane paas ku fab xol fabuk jur fabuk aw ndigal joxub sang waatal ni doo ñàkk paas cofeel ak rafet njorte ku wóolu it ku fab yatt yi jox ko am ngën ji paas ma far wax la nag luy saxaaru ngërëm ba dootoo ko réeréeti doo réere paas saxaaru ngërëm moo di kat ban ba mii ni cas nag sa mbir jox ko looloo di paas te ban baa ngi nii nag di yàpp aw nitam njegam bëgg ngaa raw jógal jox ko paas bu cër yépp gàntoo defas lëf jafe defas lëf bu yombul amas lëf jafe jógal farlu ngir yaa ngi cib lolli yow taab lolli buy wey amas lëf jafe njegam réere ngab lolli lollee ngi nii wér ak dund ak doole lollee jafe ku sab lolli ñëw nag ba say yëf ni xus la gën ngay ku yombul ku maasam jafe jëfal guddi jëf bëccëg ak sipp saa ba koo seeru naa kii jëfam yee jafe ku def nii ci sab lolli doo jeeli yëf bu nooree te doo xaare yewoo jafe bu dul kon nga mee nag nelaw koo fu gis mi ngi farlu ngir xam ni lee jëf jafe bu nit nee lasar ñépp naa dootu jóg mu xemmee ma jóg jëf te jóg jëf jafe ku jëm ci jatay romb xaalis di wey bu yeggee di gis yëf yete njëg jafe xarit dëgg ngooral ci xaalis bi yow te kat léegi seerub dërëm sax jafe ngirug mag akuk ragg ak deengu ñëw bu ñuy yegg si def lëf lu bon bon jafe defal yàllaas lëf bu mujjee jafe amas lëf ci yàllaati gën koo jafe defal yàllaas lëf bu mujjee jafe amas lëf ci yàllaati gën koo jafe ku lay jiiñatib sanga kay naw sa mbir xamal yow ne ab dof la doo kenn kët ku bannee xam ak àdduna mag bakkan di jëfloo ka wax loo du ab sangkat bu fekkoon sa baay ak sa ndey ñoo fi gën te moomoo bakkan yow gënoo kenn kët bu fekkoon sa baay ak sa ndey baaxulit te toppoo bakkan yow nga gën ñépp kët sa baay ak sa ndey gën te jàppoo bakkan di not faw wu tax til nga dib sang kët bu ab jant soo ngay fanaanee nelaw di neenal sa bëccëg du ak cang kët ni dellag ndox ak ñoom ñu naa sang bii nga def nag banaaxu dangay sanku kët ni dellag lu baaxul ñu naa sang bii nga naaxu ngirug dof dangay alku kët ni dellag mooy ak cër bu rëy ak tilim ñu naa sang baa ngi li lépp jay la kët ñi lay kaw kawee kay siyaaree ka gëm dañoo réere bon gii nga bon rekk kët bu fekkoon ña ngay gis sa bon gii nga bon ku jóg teg gi lay wéytalii xam ko kat bu fekkoon ña ngay gis sa bon gii nga bon ku jóg teg gi lay wéytalii xam ko kat bakkan joñ la jiital nga far dib laram ñu naa yaade ab sang doo benn kët bakkan joñ la jiital nga far dib laram ñu naa yaade ab sang doo benn kët njëgam bëgg nga yow sang murit jag te wér moyul marsandiis ak jigéen ak pexeem moyul marsandiis ak jigéen ak pexeem te bul diglu sax ay waxam mbaatereem ku dul moytu yi yett akay daw bu wér akay muslu woonaa asal tuskareem te ket yett yi ñoo di wangi murit dañuy muusu itteem akuk teelubeem te kat ñoo di ak max ba tey ci murit te lii doy na mboolem murit yépp saam ku bëggul lu dul yàlla ak raw lu bon ne def yii bayit cib xolam ak jibaam murit dëgg day sàmm cër sàmm xol du xoolee ke dem fiw jigéen nit ni kaam murit dëgg day sàmm cër sàmm xol du xoolee ke dem fiw jigéen nit ni kaam ku sàmmi cëram yépp sàmm xolam du gis jenn lor ndax te génnul sangeem ku jóg tàbbi dex war a saxaaru ndoxam gu wér doo ko gis lab bu génnul pakeem murit boo ko gis nag pakeemay ndigal bu tey jóg ni can ndax dexuk alkuteem ku génnul ndigal nag du gis ak mbugal ku xam aw ko aw loo ko it ay fereem waxal nag sa bopp ak sa waa kër bu wér ñu daw marsandiis ak jigéen ak pexeem ku am njëg na jëndi ku ñàkkit na muñ baam lépp gën dem di xoolee ka yéem te koo gis mu dem kat di xoolee ka yéem du woo loolu leb lab ni meŋ ak pexeem yow ban ba dakkul mu murit boo xam ni day dem kër jigéen aka bañ liggéey aka dox di kaf dakkul mu ibliis ak ñoñam faw ak lu bon may nu jub ak mbooloo mu jub muy def lu jub yaa am lu saf yaa man lu saf yaa def lu saf may nag safak ñuy wax lu saf di ko dox di def bépp murit buy gis jigéen aka dem këram far ñibbi daala ca gën de dootul tekki lëf ku ba woo këram tàggoo ki bokkam xëy ni mes la ca gën mu daw loo xam ni neexul yàlla faf koo xam ni bokkam yaa nga koy yaakaar a kay seenoo njariñ farloo ko war ak xir ba dof ragalal ndaxus gor day ragal gàccee ki mooy dellu yem ak say bokk lii moo ëpp a def gàccee di kuy wut peppakum ndox nag ba ñëw fekk dex gu rëy ak dàgg ñibbeeku woyef jàppal sa dab yii duy ba ñuy fees ak njariñ ndax boo demee kër ñibbi am yàlla ak yëf mboolem sunuy dab yàlla na fees ak lépp ndam ak mucc ak njariñ ak ngëneel ak ngën ji jëf sunu waa kër ak mboolem sunuy kër yàlla na jag sunu itte rëy nuy gaa yu am ittee kilaf sunu xol yi yàlla nay jëm ci yàlla ak ay xelam nuy walli baax aka def lu baax aka tuubi kaf wutal ngërëm ak sa bakkan boo bëggee lu sakkan lu dul ngërëm dana jeebul fàggu yow lu ko may rombal ma dina tey wey bul ko gendiku sax ku dof bëggee su ko bis boo dee ni woy sama ndey tey yaa ngi nii jonga maa ngi naari góor a ngi nii naanan ko dog waa nde yow jéggil ma lépp te wéy te jonga maa ngi jafee rombit di wéy te xamoo bindam banam mel te boo koy xam di xool aka mooy jigéen akum njaayayam kuy gis di sàkku ji njëg mbaa ngay waxaale te naa moo njëg ginam xala doy murit bi gëmmal te bul xoolu këfal ak ilam xoolub këfal ak ilam doo gis mu jur ndare ay boroomi daa pël yoo fi gis mu dog la fu it day mujj nëb ba xisaw nag xunn sax di ko yëy bu jàpp xaalis di jëndeeti xandeer ak i doj bul wal sa taalum ngërëm bam tàkk ngay faya fay watul sa bopp ba doo lor kenn kenn du la lor sàmmal sa lépp te foo dul dolli koo bu fa xëy koo gis mu wax la lu dul wax ji dalaa nara wor ngir maa ngi nii bu fi jóg naa xaw ma ngir ma ba tey ey yow murit bile bul sol dàll ak mbaxana fisab sëriñ jekki ngir màggal sëriñ ware na ey yow murit bile bul sol dàll ak mbaxana fisab sëriñ jekki ngir màggal sëriñ ware na àqi sëriñ rëy na rëy gu kenn xamul lu na day ngir àq yàlla de àqam ak murit jafe na mënee su koo bind nee saa mbir ma dëgg a ngi nii mënee su ko wone bay gët gis ko ndax sori na xamul murit te na gaa yi mag te gaa yi di ndaw gaa yi ngi naa sori na gaa yi ngi naa jige na sëriñ ba ak këram ak mbootaayam ak lu mu am fonkal te màggal ku daa def lii ma wax kawe na bul diglu kenn jëfal bul geesu kenn dawal ku dee ñu fab sànni fee delluy wax ak ña fa des wala remat la fas ak koo xam ni kii góorewul àddina nag góorewul ngir ñépp lay xalambas day dox di mbas ak a tas yaakaar a kay waru nit mag ak ndaw ak koo fu gis duniyaa nga koy negi bis duniyaa soxal na ku nekkub sox bu rëy di ko nekk te sox bu tàkk ba ñuy rët muy soxal ña fa sës soxam bi képp ku am ak ruu mu jib ci sa kaw ku dul ka bind aras day mujj far ni melas xamal ni yàlla ku bindan ñépp fi xala des ndi picc sax du fi des nam dëddu àddina mbas koo xam ni kii boo ko jubloo it mu dëddu la yow moo tee nga koo jëkk far ci dëddu ndax te mu rus ak ndaw bu lay wooka nax ngir bëgg a lekk sa yëf bañaata daw ni ko ey xam naa lu bon li nga fas àddina as ndaw la suy nax wépp far wu ko nab te wépp far wu ko nab doo jël te doo dese tus muslul naxam yi te nax koo nax ba def ko ca nug firdawsi kon yow nga jaayu xottu jënde wurus firdawsi nag moo di ndaw soo xam ni sii du la nax te ndaw su taaroo ni moom it kenn du gis ku ko gis as ndaw la soo xam ni sii giñ naa ni soo ko jëlee am yëf yu gën yi ñu am mos ñam yu gën yi ñu mos xamal ni firdawsi moo gën fapp àddina ngir firdawsi kenn du fa jóg àddina kenn du fi des ñun ñépp yal na sunuy fan gudd nuy jëfu yiw te bokk tab bi ëllëg firdawsi kenn bañ a des ñun gaa yi lay dund nan jóg léegi sàkku yóbbal sun bokk yaa ngi fi sëg yi naa ku nuy saraxal dun dégg dun gis te am ay gët du tax nit a gis ku gis te doo waaru kookee kët gëtam ya gisul kër yaa ngi sëg yaa ngi lii koo xam ni gis na ko tey soxlaati lëf lu du tub yóbbal sa xel bariwul way man te way man te way man gaa yi réer ak a bon sun dund yaa ngi leen muy booyal te lii waxuwul noo ngi di sàggan di sàkku i taalibee ki alal ba dee gi xëy sinu ay nantu bi lii defuwul te bët bu sebbee ku am am xel dangay baye bay bu dee fi peese ji ay mbay luy pexem ku bayul nawet bi dikk na day dennoo ko xiina ka taw nan jóg ku sebbulu bum yendooti kër te dëggul alal ji nuy dajalee kay kër këree ka baril day tax sunuy dono naa yi gaaya bëggi alal ay naari góor a ki soxnaa ki alal mayewul ngërëm fa yàlla ndekon kay am ngërëm di moral ak xol bu sell bu set lii moo di lay mayandam bisul layoo ba nde duy soxnaa ki taax a ki mol nan sànni àddina mi nuy dox di teq ak a dog te sàkku yàlla lu dul wax ji dafay tilimal bu ngeesu mbooloo yi nuy nekkal ba fàtte bisub dee ak bisub fa yuy jëf nan yëg ni yàlla fawul kuy dem alaaxira doo ànd ak lu dul la nga jëf doo ànd ak i naari góor ak bëkk néeg ak lal ku dee ba dee fi ko sàngi waaja yóbbu këram nga dégg soxna ye jooyoo naa ku nuy xala jël mboolem njabootam ga naa moonun fu nuy xala jëm wala réew yi wéy di wéy yàllaa ko mat di fasal farlul te waxtu wu jot nga yër sa bopp ba xam fi gaa yu sàggan nga nekkam gaa yu farlu yu xam bu yàlla àttee nga nekk gaa yu farlu yu xam santal te roy leena roy tey sàkku seeni ngërëm bu gaa yu sàggan ya dikkee wër la nag tubayul te dollikuk farlu tey moytoo jëmit fa ñu jëm abay bu koy bukki ak gaynde ki till wëree bu sàgganee alku wax ji doy na ñépp a xalam wii waxtu nag ñi ci sàggan ñoo ci ëpp dawal yow jopp roy gaa yu tuutee tuuta lay may ndam ku koo xam ni kii dañu koo sas sas la boo ko gisee amaana boo bele saytaane ko yónni yëfam sëriñ bi nee nanu bis saytaane boo ko xamee du dikk mukkati day yónnee ca suufi ndawam te nee na it boo xamee saytaane xam ndawam it mu jekki jàppi ndawam jox nag soñoñ yu bonam seytaane am kilifaa cey musle loo mën a def te xam ni yow ame woo ab sang di muritam bu ñàkk mukkub sëriñ ñàkkub sëriñ waxuwul foo gis ku ñàkkub sëriñ ibliis a dib sëriñam loo farlu farlu wutal ab sang aw ndigalam aw bëy lu daw daw te ñàkkub sàmm sànku xelam toppal ca sang ba not ay noonam ak bakkanam mu dox sa digg ki bon bon ngay ku mucc ku xam soobul ngirum àjjanay waaxoo kalak gaka daw ba tàbbi firdaw si bii rek biti door a taxaw loo mën di dégg ka gis yow ci ngënee la ki may te tàbbi woo ko bu wér am ndog lëkkat na nga daw doo xam ka ngay xala gën doo xam ka lay xala gën te tàbbi woo ko bu wér loo jëf jëfit bu ko naw ndegam dangaa jëfa jëf yow mii banaw li nga jëf seytaane jëf na lu kenn dul jëf te mujj na bew xam-xam bu rëy ak alal ak jaamu yàlla gu rëy ak jaglu ak siiwu tur yi yépp taxati la raw xaaroonal ku na ak koomam mu rëy ma mu yor firawnaal ku na ak mbooloo mu rëy ma ko aw te donte ay kooma kiy mbooloo dafay tax a gën xaaroo gën ñépp ak firawna yeewule ndaw fee jant bi fenke ak fee muy xaloo soye tey boo saytu woon lépp itam dee nangu koote ci yow fee jant bi fenke ak fee muy xaloo soye tey boo saytu woon lépp it dee nangu koote ci yow loo saytu yow mili ak koo saytu dee dana xëy bis nangu loo lale ak kookee nga des ni feraw bul gàttaam xel ba yaakaari fereeki alal bari fereeki alal taxtil nga am jëfiyu te maa ngi lay bëgg dénkub dénk dëgg bu wér bul gis sa kem yile lay neexal ba tax nga kejaw ñi lay dawal aka waxtaanal di sàkku sa mbég boo dee dañuy romb sa xabroo ka dox ci sa kaw ay dal na képp ku mbooloo wër di xool aka wax ngir faw muy jëw a kay jëwloo ka seere ku jëw bul jóg di waxtaani bul jàmbat ku gëj fi sa kër kuy sooke jëw fu mu gëj lor gëj fasante la yow koo xam ni mbooloo ma day waxtaani teggi la wéy saytaane teggi na lay wéy teb xajam du la baw na ngay fasu yiw di wax aw yiw di jëf jëfu yiw yi yett daa lay ngirum firdaw si aw ko te daw te yal na yàlla defar géppug defar sunu mbir ba tootu yàqu te may nu doy lu faw ku yiw na ngay reñaan naka xëy yow mii di gont di wéy ba tàbbi fir daw si biir ak biti door a taxaw addina loo ci gisit day wéy ndelef du ci sax moo tax lu neex ak lu neexal lépp sàmm ca ngor addina loo ci gisit day wéy ndelef du ci sax moo tax lu neex ak lu neexul lépp sàmm ca ngor mboolem lu neex ak lu neexul lépp day xalawey ba mel ni lëf ma su cee am addinaar yi war bu lëf waral mukk ngay geesoo ka soppi sa mbir luy dal di wey lu ca jar geesoo ka soppi sa mbir lu tàng xol luy xaloo dañ muñ ko rekk a ca war lu sedd xol luy xaloo dañ dëddu rekk a ca war lu tàng-tàng bu seddee guy tàng gafar lu sedd sedd bu lakkee jipp sedd gafar ak jag akuk jagadee yam loo ci gis dana dañ bul jag ba soppiw doxi nag wax dawal soliral ak jag akuk jagadee yam loo ci gis dana dañ bul jag ba soppiw doxi nag wax dawal solilor te donte yow xëy nga moom it réewi yàlla yi far melal ni moomu la lëfaf mel ni lar bu ñu yor te donte denc nga junni junni it ci sa kër na mel ni dencu la sax ab tànk waajile far te donte denc nga junni junni it ci sa kër na mel ni dencu la sax a tànk waa jile fa koo xam ni kii saa su ñàkkee mbaa mu am dara bis nit ñépp dégg ko kookee yar ba des na bu wér koo xam ni kii lu mu làmboo ñépp xam ko du nit nit day muñu ñàkk muñ xiiwal ni gumm ni mbër mbër day lewet yaru am laf tuuti wax rëy jëf bu suq say kañu muy ub jépp làmb ju gor afas la muy rawe ay fas loola kay du nga xel aw xel wu yéemu la jiitoo fas ya ak jëfi ngor afas bu dee daw te caaxaanul du fooka nga xel njegam danga bëgg raw noppil te def jëfi ngor addina laf matu cee yàkkamti ngir lu ci ñëw ànd ak ayib booya boos ak farlu jëm ci ndigal ngir lépp loo ciy bégee kay kër këree bu ñëwee day wàññi sag topp yët lay aajo far la bugal nekkal ci saw sas di doomal daala kay rafetal lu dul ngërëm ëpp naa geesoo ko wékk sa xel nekkal ci saw sas di doomal daala kay rafetal lu dul ngërëm ëpp naa geesoo ko wékk sa xel bub añ ñëwee gërëmal bub añ ñëwul na nga muñ lu man di xew aka am bul yoqi bul yoxamal lu ñëw fa bal lu ñëwul bul tudd sax lu ca jëm nuural ci saw sas te def as gor ni cell di sol asgor dafay fàtte ab añ tey fexe yéwénal sasam wa rekk te doy loo yàlla muñ lu ko dal loo xam ni lii faw day ñëw moo lu jar bi ca wax lu dul ñëwit lu ca jar ay wax murit bi waxal lu dul ñëw ak luy xaloo ñëw lépp denc ko fee te soxla woo li ñu lay def loo ba faf ko jubal loo def lu dul jàpp sa njaambur ni patt di wéy boobee defoo lañu lay def loo murit bi yëgal ku nekk fii dab yi fees ak saafara ki posen te gumba teeyala war teeyal ba nee fi musal teeyal ba nee fi la ndab lii fab ko yóbbu sa kër kon loo ca mus muy njariñ daala ngërëm ak i pal bul fàttaleeti sa mbir ngir kenn du fàtte sa ñoñ ku bañ ñu fàtte la waccal lépp jàpp ndigal bul fàtte leeti sa mbir ngir kenn du fàtte sa ñoñ ku bañ ñu fàtte la waccal lépp jàpp ndigal sëriñ bi nun yaanu rokkas yaanu roofatu yiw yaateenu af yaanu teexey daanu yaa gën a baax doo fecc wëllëre doo bés kenn doo dige wor ku dul yow ak mën a yam yow rekk rekk a fi baax ku dul yow ak mën a yam day gindi def lu rafet delloote ci bon banam yow daala way ci lu baax koo xes ni cas jame kaw kaw rekk lay xala jëm du daanu mukkati jaajëf sant naa la bu baax yaa tax ñi niy sopp bég yaatee ñi niy bañ a bég bu dul ko nag yow lu bon am sant naa la bu baax doo fekke gàcca te doo seetaanu ay jërëjëf dundal nu dund sa digg ak nun di dund bu baax koo xam ni kii mas na noo xëy wacc xëy nga nu yow wuutal nu fukk kemam cay sew defii naka baax bu dul kanal yow nu xëy bis daanu jël bu rëy fegal nga nu jël faw ak suufe def nga lu baax man fàttewoo ma te seetaanoo ma yaa ma teree dee sax bu yàgg ba nee faa donte dund na baax koo xam ne nag moo la may ak dund jox laalal musal la ci jël mat naa jox sa bopp bu baax jox naa la saa jëmm ji ak lépp lëf lu ma yor musal ma saytuma may mag yokk faw gu baax rokkas nu dàbbat nu roofat noo ku yiwu nu saf nu jekki-jekki ni kekk ak lépp lépp lu baax sëriñ bi nun noo ñëwoon ak ñàkk barke gu rëy nga may nu barke bu rëy ak cant war na ci nun koo gis ci nun ba mu fi ñëw kenn dong la woon nga may ko mbooloo mu xër sa cant war na ci nun koo gis ci nun ba mu fi ñëw waa ji ñàkk la woon nga may ko jur gu ko lew sa cant war na ci nun koo gis ci nun ba mu fi ñëw waa ji suufe la woon nga fab ko sànni ca kaw sa cant war na ci nun koo gis ci nun ba mu fi ñëw kenn déggu ko woon nga may ko bay reeku turu sak cant war na ci nun koo gis ci nun ba mu fi ñëw waaju yàqu la woon te yaa ko jàpp defar sak cant war na ci nun koo gis ci nun ba mu fi ñëw booba lëf la xamul te yaa ko jàpp xamal sak cant war nu ci nun koo gis ci nun ba mu fi ñëw booba lëf la xamul te yaa ko jàpp xamal sak cant war na ci nun mboolem lu nuy wër ci yow ci cant ak jëf yiw luy tax nu man kooti dal koy def defal nu ko nun yaa xëy defal nu lu tax nuy sant faww ci yow jëf loonu jëf juy waral ngay sant faww ci nun nu ñopp noo ngi gërëm yàllaa ka sant ci yow nekkal yawit di gërëm yàllaa ka sant ci nun nun ñépp noo ngi fi sag ron yal na yàlla dogal sunu jugoo faw amiin ak ñi jàpp ci nu nu ñépp noo ngi fi sagron yal na yàlla dogal sunu juboo faw amiin ak ñi jàpp ci nun feeñal nu feeñal ci nun feeñal ku nekk ci nun nuural ci nun faw feeyal fitti faw ci nun gaayaa ngi taax ak a jël soxna ak a jëndi wata xiiwal gi tax nañu faf daf kenn xamul lu ko ta alal ji ñëw na te doy looku doyal amul it nit ñaa ngi fii gën a bon saytaane neexu la të ku ñàkk day fas ni ñàkkam gaa ko te mën a dem te buy amit dal di gàllankooru yal nanu të réer ak xam ak ñàkk ak am am du tax nit a bon du tax mu baaxit ku xam lii kon nga mat ni mata du ñàkk lay taxa bon dum kooma lay taxa gën nun ñépp yal na nu xàmmee sunna ak farata amul lu tee dara am mbaa luy waral dara am ku mucc mbaate mu te yàllaa ko def ci tata bayil lu bon defu yiw lii war ci lar bu ne nag ku lay xamal bilee xam-xam koo kasab xarita ku yor sa njëg te gisoo loo jënd doo tane nit ku ñàkk njëg te gisum njaayit mu far ko fëta ku yor sa njëg te gisoo loo jënd doo tane nit ku ñàkk njëg te gisum njaayit mu far ko foto na leere benn fa baax benn fa neexe benn ba àjjana waay bu kenn lëndëm bu fenn lëndëm bu lenn lëndëm ba àjjana waay ku nekk nay leer fu nekk nay leer lu nekk nay leer ba àjjana waay na ñépp faf leer seeni waxit leer seeni jëfit leer ba àjjana waay na xol yi faf leer jëmm yi faf leer barab yi faf leer ba àjjana waay ku nekk nay tuub tey saxalug tuub di rafetug tuub ba àjjana waay ku nekk nay daw loo xam ni du yiw tey farlu ci yiw ba àjjana waay bëccëg yi nay leer guddi yi nay leer waxtu yi nay leer ba àjjana waay nanuy daw neen tey muslu ak neen faw ak yoxoy neen ba àjjana waay nan la xasuu góor tey royoroy góor ña daw ba faf góor ca àjjana waay nég leen a nekk añ rekk te faf muñ ku jot ci sab añ ngab àjjana waay am leen am ngor te muñ amub yaral ba jot ci ndam far dem àjjana waay na seeni xel dal am ngeeni ndimmal yaakaari ndimmal ca àjjana waay jox nañu nu reer génne nu ci réer tabal nu ci leer ba àjjana waay am na nu yóbbal bu rëy bu yombul am ku nu àndal ba àjjana waay bu kenn yoqi bu kenn toqi na ñépp wàqi jëm àjjana waay ku yegg guuru fawte buuru te dëkke jooru ca àjjana waay àddina kër la àjjana kër la ñaar ñu far la may àjjana waay yal na nu am kër gu sedd ku jur taam kër ak kër ca àjjana waay yal na nu jaglu fawte farlu te taawu ndam lu ba àjjana waay yal na nu ñii ñee yal na nu ñee ñee ñu bokk ni ñee ba àjjana waay yal na nu jël ndam te jël ña jël ndam tey jii te jël ndam ca àjjana waay te yal na nuy bég fawakaam mbég te nekk ci mbég ba àjjana waay yal na nu tedd te sax ci tedd rekk ba tëdd ca àjjana waay yal na nu gudd maqaama gudd aw fan di dund ba àjjanaa waay yal na nu séddoo ngërëm te séddoo barke te séddoo nag àjjanaa waay yal na nu leeral fu ne te leeral lu ne te leeral ba àjjanaa waay yal na nu sant def lu ñu sant ñu di nu sant ba àjjanaa waay nanand déggoo def kenn lëngoo te bañ a tàggoo ba àjjanaa waay nan bokk xar baax ñu may nu xar baax saxal nu ci baax ba àjjanaa waay nan faf ni yomm ci yoonu jàmm ba xëy ni yomm ca àjjanaa waay ñu ne nu yomm lu dee fi namm nu faf ni gumm ca àjjanaa waay nan dëgg dëgg tànk yi dëgg ba ni ko tëgg ca àjjanaa waay gis lu daa buun mos lu daa buun faf yegg niw yoon ca àjjanaa waay teg ba ca kër ya dugg ca kër ya tëdd ca lal ya am àjjanaa waay ñu fal nu faw nu falu faw te guur faw ca àjjanaa waay nangul nu yàlla nangu gu sell te jox nu ngal nun àjjanaa waay nan sant yàlla te way ci yàlla te xam ni yàlla gën àjjanaa waay yàlla mi yàlla may ndimbalam la faawa ngërëm la ak àjjana waay caata dee mag sëriñ bi daal ak yeneen bi daal ak waa àjjana waay